asalaamaaleykum mbokki na du ñuy seetaan ci seen web ñu ngi am mbégte ak kontaante di feggoo ak yéen eh, tey nag boo leen ñu gisee ñu ñu seet si ndaanaan comme d'habitude ndax eh, moom la ko kenn la koo xamante ni eh, saa yuñ ko seetsee rek macha allah mu defal ñu ay révélation yu explosive mu nekk koo xamante ni sénégalais yi dañu ko bëgg ndax tey franchise am ak tey ñeme wax dëggam quelque soit alpha ak lu ko ci mënti fekk dina wax li mu xalaat ak wax li nga xam ni moom la xam ni bu ko waxee tey nit ñi dinañ ko dégg te dinañ ko déglu kooku nag moom mooy maam Goor Diazaka moom lañ lañ fekk si fii tey ci Sacré Cœur ngir am ak moom waxtaan bu yaatu ñu nara a nag actualité ñu war a waxtaanee point yu bari dinañ ci daal di xuus ci kanam tuuti eh, maam Ngor nuyu naa la ziar la. Zeyna maa ngi lay fay di nuyu internetu Seneweb yëpp. Mhm. di nuyu suma frère suma xarit Abdou Salam mhm. Seneweb parce que moom. yàlla dafa dogal suma rakk la mais suma xarit la suma frère la daal. Mhm. ñu ngi lay dalalaat ak jàmm vraiment di am mbégte ci euh, ni ñu dalalee ci sa biir kër euh, xam nañu saa su ne bu ñu ñëwee kër gi lu ñu fi bëgg rek day koy yombalal parce que day wax toujours euh, Seneweb këram la te lu fa waa Seneweb bëgg rek mu yomb. alors dañuy njëkk a commencé rek ci li nga xam ni moom mooy actualité muy vidéo bi nga xam ne ñu ngi koy gis muy circulé ci ñaari fan yëpp muy li nga xam ne moo xew sa Sacré femme bi nga xam ne dañu supposé ni dafa sàcc ñu def ko vraiment loo xamante xamante ne lu ñaaw la Sénégal yëpp ñaawlu ko nan nga ko gisee maam Góor. waaw ni ma ko gisee mooy comme ni ko Sénégal yëpp gisee. Mhm. parce que nit ñi il faut ñu fàttaliku ni jigéen moo ñu jur. Mhm. mooy sunu yaay. jigéen ñooy suñuy soxna. jigéen ñooy suñu ay sœur. donc tey boo amee sa sœur bàyyi ko sa kër. wala nga am sa yaay bàyyi ko sa kër. Mhm. wala nga am sa soxna bàyyi ko sa kër. doo toroxal jigéen. jigéen kenn du ko toroxal. parce que ku fi exister ci kaw suuf daraja boo mën a am ak noo mën a toll ci àddina jigéen moo la jur donc jigéen boobu da nga ko war a respecter surtout nag koo xam ni dafa def njuumte parce que am na ñoo xam ne dañuy sàcc te duñ ko tey am ñuy sàcc te ñoo ko tey mais même sàcc bi sàcc te tey ko sax soo ko jàppee waroo ko dóor police nga ko war a yóbbu police def liggéeyam mais jàpp nit ñii di ko dóor ñii di ko tripoter di ko toroxal te ëllëg mu war a am ay doom wala fekkee am na ay doom am na ay doom peut-être wala amu ko mais njabootam ñëpp di ko xool dafa nekk loo xam ne lu ñu war a ñaawlu la ñuy profité nag ci occasion bi te parce que Sénégal léegi dafa changé Sénégalais yi dañ changé dafa am yeneen jikko yu bees yoo xam ni moom ngay gis yoo xam ni Sénégalais dañ ko am te c'est c'est ay affaires yoo xam ne dañ ko war a déplorer la quoi mm-hmm. Mm-hmm. donc nag li ñuy ñaan mooy nit ñi xam ni Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ñu jàppalante am yërmande waxuma la sax ci jigéen mais am ko ci sa sa moroom mm-hmm. parce que soxor am na yoo xam ni man pour man xeetu soxor la. et puis ñi nga ñi xam ne ñoo def euh, vidéo bi boo xoolee la femme mën na leen jur. tey boo xoolee ci âge ak ñoom âge bi ñor boo xoolee tuuti moom waroon na leen mën a jur mais est-ce que tey jeunesse bi jotul tey ñu xamal leen lan la yoon wax lan la droit wax parce que dafa mel ni lépp lu ñuy def ñàkk xam la ak ñàkk xam-xam moo tax ñuy def loolu. non c'est que dëkk bi. xam nga ñi war a wane le bon exemple su ñuy wane image bu baaxul mooy mooy tax jeunesse bi ni ñu war a mel duñ ko mel gis nga boo demee Amérique. wala nga dem France wala nga dem en Europe partout foo dem nit ñi dañu yaru doo gis kuy tufli ci mbedd doo gis kuy saw ci mbedd doo gis kuy teg ci mais fii léegi da ngay gis benn nit mu taxaw di saw ci benn mur soo ñëwee wax ko ko mun la fii mbedd buur la ça veut dire que ni discipline bi nit ñi war a am amuñu ko Sénégal rek ngay gis ma nga baal ma nag ci terme bi parce que waxuma sénégalais yëpp mais sénégalais la plupart de sénégalais dañu soxor Sénégal rek ngay gis nit dem jël vidéo dem di filmer kër kër nit naan xoola kii oto yi mu am kër gi mu am dañu iñaan bëgguñu ko am dara uh-huh. nit sega fii Sénégal mën nañ la puus ba nga nekk numéro un mais boo yegg un ñu lay commencé mbas uh-huh. gis na tey Modou Lo mu nekkee roi des arènes nii ku muy bëral ñeneen at beneen adversaire bi la ñuy faral dañ lay puus ba nga nekk roi ñu xeex la pour nga daanu uh-huh. sénégalais bëggul numéro un sénégalais numéro de rek lay wër mm, Sénégal fii tey jii bi fi ab Ablaye Wade nekkee dañ ko doon xeex naan Macky Sall ko yor nañ kii ñëpp di xeex dem ay fu ne tey Macky falu ñi daan xeex Ablaye Wade tey ji ñoo taxaw di xeex Macky saal parce que mooy numéro un léegi gis nga dañ naan Ablaye Wade ni mu baaxee dañu rëccu waru fi woon jóge te ñoo ko daan saaga naan góor gi dee na góor gi dee na daal di wut benn néew teg nii di ko di ko kii mhm. est-ce que comprendre la bëgg expliquer mhm. c'est que ñun ñun suñu problème ñu c'est entre nous dañu soxor bëgguñu ku am dara buñ la gisee sax yow nga yor oto bu baax di ko dawal sénégalais rek ngay gis nit am alal mu ñëw ñu ne fan la ko jëlee sa léegi dafa tekki de dafa sawaay waay dekki na de xam mhm. fu mu jëlee xaalis c'est tey boo demee si dëkku ñag yi wala nga dem si yeneen dëkk yi bu ñu gisee un jeune wala benn nit boo xam ni dafa am dafa am réussite nit ñi dañuy kontaan ci moom mhm. donc nag yooyu yëpp ay affaire la yoo xam ni il faut mu dañ ci xolu nit ñi mhm. il faut que nit ñi yéenante jàmm xam nga bëggante mais ñun li ñuy wax ni dañ koy wax nii rek ci kaw di maslaa di reetaanante xam nga xam nga boo demee ci yenn tëkku ñag yi nii wala ay Mali wax fa affaire yi mhm. c'est que ñoom mënuñ la mere jël ay armes mhm. mais fii arme bi ñu gën a am bi ñu yor moo gën a bon mooy arme gémmiñ. <laughs> arme gémmiñ dañuy wax rek yéen wuñu kenn jàng. Ah, ah, te ah. c'est pas bien. Mhm. voilà euh, lan ngay wax tey jeunes yi bi lay seetaan ak jeunes yi lay seetaan pour euh, tey bu ñu même bu ñu fekkee ni nit dafa sàcc wala ñu yem ci accident au lieu ñu jël di ko filmer ñu ñu ñu ñu jéem koo dimbali wala ñu jéem a xool li nga xam ne mooy lu yoon lan ban conseil ngay jox. mais conseil bi may jox nit ñi mhm. rek mooy mooy ñu conscient xam ni nit ki tey ji bu nekkee ci ay difficulté mooy surtout ko accidenté da ngay gis benn mhm. a ñëw taxaw li bi ñuy njëkk def mooy yor seen téléphone di mhm. filmer yow doo sauver léegi ñëpp ay journaliste lañ doo sauver ki nekk mhm. ci suuf mhm. mais yow yaa ngi bëgg loo nettali sekk que ñëpp bëgg nettali <laughs> ñëpp ay journaliste xam nga Sénégal dëkku wax la ñëpp bëgg a nettali <laughs> donc loolu mooy indi problème lakk day am nga war a ñëw sauver nit ñi yaa ngi yor sa téléphone di filmer nit day accidenté ci mbedd ñu tëdd ñu war ko jàppale pour dimbali ko yaa ngi yor sa téléphone di filmer il faut que tey nag dëkk bi dëkk boo gis dafa am ay charte am ay yoon am ay loi tey jii ñi nga xam ni dañu def ñaaw ñaawteef bii dañ leen war a yar yar boo xam ni keneen ku leen gis ni ah lii ñu def ñii de dëgg-dëgg neex yàlla man deetuma ko def parce que ni ñu leen yare nii yar bu sévère bi mhm. ah man lii de du ko def mukk kon su ma la déggee daal dañ leen war a sanctionné dañ leen war a sanctionné dañ leen war a yar mhm. xam nga fii man damay gis chaque jour sénégalais yi wala africains yi naan Paul Kagame Paul Kagame di ko tag mais am na benn rapport boo xam ne dégg naa dafa génn benn jour clash ko saago waa ji fanaanul gi lañ ko kil mhm. parce que Sénégal lañ ngay gis ay nit yu yor seen téléphone taxaw nii di saaga président de la république. président dagg saaga ndey. yow lan la lay def saaga ndey c'est l'arme des faibles saaga fu muy taq. taxul su ma su ma la déggee dafa mel ni Assane Diouf ngay waxal de. non non waxuma bul tudd turu nit. tudduma mm-hmm. turu kenn. Mm-hmm. man tudduma samay wax rek quoi. mais kaawu Assane Diouf nag nan nga ko gisee bañ ko jàppee ba tey kenn waxatul ci ay mbiram dara. non Assane. Mm-hmm. war na a nekk activiste. na mun a nekk koo xam ni. ni réew mi di doxee neexu ko mu koy kaas man yaa ngi ñëw di ma interview mas nga maa dégg ma saaga ndey mas nga maa dégg tey jii dama lay wax benn nit boo xam ni li muy def intéressé wu ma nag mais mun naa la wax Guy Marius Sagna mas nga ko gis mu saaga nit c'est un activiste mhm. saaga du baaxul mhm. saaga du dara taxaw di saaga ndey boo saaga ndey boo koy def sax nit ñi duñ la naw duñ la respecté mhm. parce que ku am sa yaay respecté ko doo saaga yaayu jàmbur saaga amul chance donc nit ñi li ñu war a yar suñu biir moo bëri parce que da ngay gis Sénégal la ngay gis kuy saaga ndey nekk star <laughs> saaga ndey nga nekk star boo génnee ñu lay topp naan diwa nga ne <laughs> uh-huh. saaga ndey non nañu <laughs> saaga ndey yow da saaga ndey yow nga nekk star uh-huh. mais bu fekkee ni tey ji nit dañ koy gis muy saaga ay ndey muy génn ci ay jigéen ñëw taxaw naan kaañu foto photo kenn naan kaa ñu def nii mais beneen xale bu ndaw boo toog ci biti uh-huh. day yaakaar ne bu saaga graw la saaga ndey c'est l'arme des faible encore une fois donc ñun li ñu war a changer suñu biir moo bëri nit war nga mun a am lu la naxari si nit nga wax ko ko te doo saaga man chaque jour ma am lu ma metti loo xam ne naxari na ma wala ma gis dara loo xam ne ñu ngi koy doxalee ci dëkk bi neexu ma ma dingaan ko abla ablayaat bi mu fi nekkee dama ko doon xeex mais mosuma ko saaga tey Macky Sall laa faral ñi koy saaga mosuma leen saaga saaga ndey amul sens du faj dara donc ñun population bi dañu war a góorgóorlu ci yar suñu bopp parce que dafa am ay xale yoo xam ni ñoo ngi fi di màgg waruñu xam nga euh, gis yenn affaire yoo xam ne dafa leen di heurter am ñoo xam ne mën na changer seen conscience surtout les autorités soo xoolee fan yi yaa ngi gis internet bi saagante yi kilifa yéeg yooyu quoi man pour man amul sens est-ce que la nit ñi war nañu mën a fexe ba doon benn booloo est-ce que la di xàcceendoo di dóorandoo parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar am na solo dafa ma sax daal di ñëw ci sama deuxième question bi nga xam ni tey eh, ci laa doon ñëw muy affaire Cissé Lo bi junj nga ko mm. léegi mm. muy kilifa yi nga xam ne ñu ngi nekk di saagante waxante bu ñaaw bi am ci biir APR noo ko gisee non man rafetlu wu ma ko mm-hmm. parce que saagandey mooy comme li ma ko wax rek c'est l'arme des faibles mm-hmm. taxaw di saagandey nit man pour man amul sens mais je pense que aussi Cissé Lo bi muy def audio bi audio bi audio privé la non même bu xam nga audio privé la mm-hmm. tey jii ki ko jël yaatal ko ci mbedd mi kooku war nañ ko sanctionner parce que ki nga xam ne am na lu ko metti ci yow bu mu def audio saaga la mais bi mu lay saaga audio loo def yu def ko sa téléphone yow mi ko yaatal yóbbu ko ci mbedd mi yow war nañ la mën a sanctionner war nañ la kii mais man li ma dul rafetlu mooy entre kilifa su fekkee ni ñoom ñëpp dañu jóg pour xeexal président de la république di ko jàppale Macky Sall ñuy jàppale kenn mësu ko gis mu dëmm nga dañ lay tooñ mhm. waxal ko wax bu ñaaw mu nekk président de la république nekk jeune nekk xale mën ko méttitlu mën a mën ko faj mais dafa jégale jëlale mhm. àddina il faut que nit ñi di comprendre xam nga am loo xam ne esprit de dépassement ni da koy am mhm. Macky Sall ku ko xam xam ko ci yar xam ko ci teggin xam ko ci bëgg réew Macky Sall rek moo mën a jiite Sénégal parce que du wax du wax du tontu day def li muy def rek di dem seetlu nga loolu loolu Sénégal liggéey lay def noppi mhm. mais billahi Sénégal tey jii bu doon yeneen dëkk yi ay Paul Kagame wala yeneen dëkk yi jiite fii wala ay Yaya Jammeh wala ay yenn affaire yi am na yu bëri yu xew ci réew mi du fi xew. dëgg la. nañu waxante dëgg. kon sanction bi ñu sanctionné ci Cissé Lo d'accord nga ni d'accord nga ni lu normal la liñ ko génne. ci xam nga man bokkuma ci ci seen kii nu mu tudd euh, directoire comme yooyu noonu seen affaire yooyu ñuy def noonu. Mhm. Cissé Lo yàgg na ànd ak Macky Sall man tey su ma amoon message boo xam ne dama koy lancé. Mhm. le président de la république Macky Sall laa koy lancé. parce que ñoom ñëpp njabootam lañu. Mhm. njaboot nag soo ko amee di nga am ku tàng. Mhm. di nga am ku wérul. di nga am ku réew. di am ku ñàkk fayda. di am ku bari reetaan. di am ku tabe di nga am képp yaa yaatal sa diw gannaaw rek boot ñëpp. bul nangu ku la jaxasee kenn parce que si sa tamit loo ko mën a waxal am na mérite. yàgg mu ngi ko def ci privé gars yi teg ko ci mbedd mi est-ce que la du ni kii moo am dëgg du ma ni kii moo amul dëgg mais li Sénégal yu rafetlu mooy heurté nañ Sénégalais yi ci ay saaga ki ko divisé ki ko génneeg yooyu xam nga man awma ci ku ma man kenn laa xam ne moom laay supporté faral ko muy le président Macky Sall uh-huh. di ko jàppale est-ce la donc rafetlu ma li nga xam ni moo xew nii quoi instant bi mhm. mm. kon jàpp nga ne daal président dafa waroon régler affaire bi en interne. non dina ko régler pas muy sanctionné ba léegi dafa mel ni Cissé Lo déggaatuñ ko mu wax dafa mel ni affaire bi ñu ngi koy régler ci suuf. waaw mhm. mhm. soo ko doonee xam nga maam Abdou Aziz dafa manqué fii kilifa soo ko nekkee da ngay régler lépp en sourdine affaire yi coow lu bëri na ku nekk ngi génn noonu Macky Sall yëpp jóg nañ taxaw naan si Lo li mu def noonu la. dafa yi dafa moom waxuñu saaga yi mais li mu defoo dévoilé. xam ma dama lay wax gis nga nit ñi dafa bari ay saytaane yoo xam ne ku leen déglu tas sa dëkk ay nit jàppante nañ ah li ñuy ñaan yàlla mooy ñu juboo àndaat bokk ndey bokk benn baay tey même ñi nekk pouvoir ak ñi nekk opposition yow mu nit ki mën nga koy opposé te du doon sa noonu mhm. est-ce que comprendre la gis na tey ji li ñuy wax transhumant waa APR yëpp tey APR xanaa kon Macky Sall sax transhumant la mhm. du PDS la nekkoon ñëw créé APR nañu waxante dëgg ay tii transhumance la yooyu amul sens li am sens mooy nga am xam-xam war ko yéene ko sa dëkk def ko pour ton pays nga def ko nag dans la discipline nit mun ngay wax dëgg di wax li nga xalaat te doo heurter kenn doo saaga doo wax lu ñaaw man daal li ma li ma d'accordul mooy ni ñu franchement ni ñu jëlee affaire yi banaliser ko xam nga ku nekk di saaga kii di saaga kee ma rafetlu ma ko quoi mm-hmm. te tamit di ñaax président lu mu mën a gën a yaatal diggu ginnaawam boole xamoon ñu def ko. am na solo mu nekk message bu foor bi nga xam ne lancé na ko le président de la république te lu ñu wax saa su ne ay euh, jàmm moo gën ay. Mhm. Ah, na ñu fexe rek lépp rafet ndax ñoom mhm. ñëpp suñu kilifa lañ. te ñoom ñëpp ñoom ñoo boote di jàpp ci réew mi ngir liggéey mu jëm kanam et pour ñu liggéey nag seen réew mi jëm kanam dañu mhm. bëgg solidarité. dañu bëgg jàmmoo seen biir rawatina nag ngeen bokk képp kenn ki ngeen bëgg ngeen bokk benn cause. bi ngeen xeex am lu lay dugal rek. gis nga lii yëpp nag. dama la su ma ko waxee sax <laughs> maam góor dafa contre diw wala diw. vas-y gis nga depuis événement Ousmane Sonko. mu ñëw nekk un opposant <laughs> moom moo yow yow daal loo loo wax rek dugal ci Ousmane Sonko non non dama lay wax moom moo créé dama la bëgg expliquer. il faut moo mhm. wax la. Mhm. c'est tey jii depuis son événement. Mhm. ci lañ gis ay nit yoo xam ni dañuy tuddee seen bopp ay activistes di saaga nit ñi. kon Sonko tey jii boo xoolee dama am benn gel boo xam ni seetaan naa ko keroog Françoise Hélène Guèye. muy wax kooku activiste la. mais dafa wax ni. moom ñi koy saaga ñëpp Ousmane Sonko moo leen yebal. xam nga ji jii Sénégal dañuy tëkkale bari nit bari la ay nit ak bari la ay saagakat. Mm-hmm. tey gars yi dañuy jël benn bureau teg fa dix boy. Mm-hmm. dix boy ku nekk wut posodo. Mm-hmm. tudd Marème tudd Aïcha tudd Daouda tudd Jules ne ba muy trente. trente fois dix. trente fois dix euh, trois. Euh, trois cent lay nekk. léegi nag ñoom ñëpp ñuy saaga ñu ne trois cent personnes ñuy saaga fekk dix la dañoo def ku nekk posodo posodo. d'accord amuñu ay et puis loolu la donc il faut que nit ki gars yi ñuy def benn politique bu seen tey ji am na yoo xam ni nit mën nga ko opposer mais doo ko yéene safaan te ñoom depuis son son événement ci la affaire bi mel nii donc loolu il faut que sénégalais yi am sañ-sañu di ko wax parce que fii gars yu bëri dañ naan boo ko tuddee rek gars yi saaga la est sa que xam nga lu mu la bëggee expliqué moom mm-hmm. arme boobu la jéem a mm-hmm. léegi yow ki nga xam ne jëlagoo pouvoir demagoo pouvoir di saaga nit ñi mm-hmm. xanaa boo jëlee pouvoir da ngay reyaate boo fekkee ni yow da nga ni da ngay aspirer diriger benn c'est que man maam Ngor man lu mu mënta comprendre mooy yow ak Sonko seen diggante lu ci ne yéen daal mënoo leen laale tànk daal mënoo leen juboo daal no parce que non du question xuloo man contre ma ko man du ma bañ nit xam nga lan laay ay jéem a détruire nit koo xam ne saa yu jógee di wax rek li muy wax pour détruire nit la mhm. diw sàcc la diw te diw moom am ay doom am ay jabar am ay mbokk am lépp nga ni sàcc la dafa def lii dafa def lii mhm. nit yenn saa am na sax loo xam da nga koy xam ba pare nga ne du ko wax xam ba ca mhm. wolof da koy wax mais yow loo xam wax ko <laughs> xoolal tey jii dama lay wax rek dama lay jox benn exemple ci affaire Babacar Ngom Sedima coow li am ni ndeng la bi mu amee diggante ay baykat ak benn homme d'affaires mais moom soo numéro de dafa génn jël population bi di leen jaxaseeg waa parce que dafa bëgg a nekk maire foofu. numéro 2 Sonko. mooy mooy jaxase population bi ak ak. waaw mais mais déggoo si def yëpp. parce que il veut être maire hmm. comme nag bëgg na nekk bëgg am bëgg am sympathie population bi moo tax muy attaqué waa ji gis nga nit ñi dañuy waxante dëgg. Hmm. Sénégal benn bopp la ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. gis man Ousmane Sonko lépp lu ma ko yéene yàlla na ma njëkk dal. jàmm rek laa ko yéene. mais man bëgguma kuy détruire nit. di wax si nit lu ñaaw di toroxal nit. c'est pas bien. mais Ousmane Sonko tey su la woowoon pour ngeen toog ngeen waxtaan dañuy waxtaan ngeen régler seen différence boo dañuy toog waxtaan ma ne ko saay boo bàyyee nii rek lii moom boo ko bàyyee <laughs> ay jeune lañ uh-huh. il est jeune il a le droit d'avoir xam nga l'ambition de diriger sa pays uh-huh. jeune la guerrier la mu ngi ñafe uh-huh. mais xam nga lu ñuy lu lu bon mooy yow nga ni damay politique mais Ousmane Tanor xool dimension bi mu amoon kenn mësu ko dégg mu saaga kenn mësu ko dégg mu yàq deru nit xool ay Aminata Mbengue jaay waa PS yi xool leen Ablaye Wade mi bi mu demee sax ba nekk mag nga xam ni mag benn moment xam nga eh, dina am ay affaires yoo xam ne mag la quoi parce que mag dangay dem ba delluwaat xam mag buur la voilà mag buur la mm-hmm. ci la kii mais Ablaye Wade dëggantaan Ndiaye bi mu daan opposé Abdou Diouf fii kenn mësu ko gis mu wax lu ñaaw kenn du ko dégg. mais fii léegi politique bi gars yi dañ ko jël def ko ay pour ñoom daal saaga saaga ndey. ku dàq saaga sa moroom wala ku dàq waxal sa nit diw sàcc la wala diw def na njubadi ba pare nit ñi soxor benn peeru soxor boo xam ne yow buñ la gisee nga sañ sax ñu mer. Sénégal bëgguñu kenn ku am dara. ku am yow boo solo solo bu rafet sax ñu ne warul so xool xool li mu am. fal nañ ko rek am na lii. mais léegi nit ñi lu tax ñu judd nit ñi dañuy judd pour màgg am ay affaire tabax ay kër am ay oto am ay bien mm-hmm. nit ñi kontaan mais fi mu toll ni ko am bien sax nga dem filmer bi mu am ni xoolal moo am na lii am na lii am na lii dañu bëgg ñëpp mm-hmm. mais ñëpp mënuñu torox il faut que nit ñi am teraanga mm-hmm. loolu la kon mu ngi noonu li ma lay wax nii boo ci amee seetlu na nga ci def seetlu bu baax waxuma Sénégal yëpp nag mais ñun war nañ xoolaat suñu jikko yéenante wuñu jàmm nit ñi dañu soxor bëgguñu ko am dara lu nit am ñu teg ci seen bët uh-huh. tey boo amoon ay copine léegi di ànd ak ñoom yàlla mane la gan uh-huh. nga xëy suba tey yor sa 4x4 bu rafet am sa appartement am sa jëkkër am lii xala léegi ñu ne giwin nga wala lii yàq sa def <laughs> dëgg la dëgg la mu ngi noonu mu nekk message bu fort bu maam li muy mettit la bu sanoon tey réew mi euh, lépp dafay baax bu sanoon tey réew mi lépp dafay dafay neex ñëpp nekk ci jàmm donc kon Ousmane Sonko mu ngi noonu message bi la maam góor jox euh, woo ko ngeen toog ngeen waxtaan ngeen mën a régler seen différend loolu c'est important mm. mais dañuy ñëw ci ci ci deuxième question muy censure bi nga xam ni euh, coow lu bari am na ci jamono ji muy sa diggante ak waa GFM euh, tey ban retour nga ci am bi nga defee sa soxla non man amuma benn problème ak waa GFM mhm. parce que boo xoolee GFM man groupe la boo xam ne tey su ma doon wut groupe mooy doon sama groupe ndax ki ko moom waykat la man waykat la mhm. tey nag sawaay mhm. lu dagg maroom ma lay fekki tey Youssou Ndour dafa def ci dëkk bi loo xam ni man defuma ko fi ku dul man defu ko fi il a investi dans a pays te yaakaar naa bu demee bu ubbi télévision ubbi rajo mhm. ubbiwu ko pour boppam mais da ko ubbi pour sénégalais mhm. donc man su ma toogee nit woo ma wax ma ni ma oui dañuy interdire ñu teg la fii taf Afrique am naa droit ma def ci ay nga su mais rek yàlla dogal na ni mhm. lépp kol lépp alhamdulilah jàll na kon Youssou Ndour na la daal non grand bi xam nga donc kilifa la est xam la ñi mu dénk affaire yi tamit ay kilifa la xam nga loo xam ne rafetul waxtaan nañ ci ñu xam ñu delloowaat lépp rek kii parce que amuñu problème man j'ai aucun problème ak euh, waa Futur Média mhm. Youssou Ndour suma mag la bokk naa ci sénégalais yi gën a bëgg Youssou Ndour mhm. fii mhm. c'est mon grand et je le nga wax ko Youssou Ndour Youssou benn yoon par cent ans lay juddu ci réew maa la ko wax loolu maa ko njëkk wax am na ñoo xam ne bu ñu juddoo ren cent ans après la ñuy judduwaat parce que parcours bi ñu def ak fi ñu jaar pour nit jaar fa problème la donc ñooñu bu fekkee yàlla dafa dogal ñu am reconnaissance su def la rek mhm. di waxtaan ak yow Youssou sama mag la mhm. lu ma xewle mu ñëw mhm. lu muy def ni ma lii kon nag da ngay gis ñoo xam ne dañuy gis buur wala ñu gis njiit mais day am ay saytaane yu nekk ci suuf li naan buur ayul dagg mandaat di jéem a jaxase a def ay affaire kon daal loolu moo fa am buur ayul dagg ñoo aay c'est que dama bëgg dama c'est que dama expliquer loolu waxuma foofu la am mais dama bëgg expliquer rek man képp ku bëgg a dugg sama diggante man ak Youssou daf am nga problème parce que mm-hmm. du ma ko mere mm-hmm. du ma ko xas tey laa gën a bëgg Futur Média mm-hmm. tey laa gën a bëgg rajo RFM xam nga tey laa leen gën a jàpp parce que Youssou Ndour c'est mon grand frère et je le réclame te Sénégal yëpp xam nañu jox na ma cër kon daal woo na la fu mu toll nii lépp. non alhamdulilah lépp alhamdulilah lépp alhamdulilah. mais mais noo gisee tey jii ci guddi nag ma seetaan TFM man lañu invité. yaa ngi TFM kon baax na. kon eh, kon noo gisee noo gisee sotti El Hadj Assane Gueye nee eh, nag effectivement maam Ngor loolu sa cër tey buñ la woowee wax la dara da nga waroon dem ci ñoom ngeen waxtaanee ko seen biir mais waroon génn nee na yow da nga def erreur def nga sa cër waroon dem ci. internet mhm. mhm. mhm. mais bi affaire bi amee woo ko moom. woo ko quatre appel woo naa Youssou Ndour woo naa Birane Ndour woo naa ñëpp ñu waxtaan mm-hmm. buuba tamit woo na ma ñu waxtaan mm-hmm. xam affaire bi xam nga mm-hmm. on a trouvé kii am nañ yoon xam nga amuñu problème man xam man su ma man bu dara amee dama naan kon tell xadar gi daal moo bari ma waxee lii damay ñëw ni tell mm-hmm. wax ko mm-hmm. loolu la mais aw benn problème mm-hmm. ak ak ak waa ak waa groupe Futurs Médias Futurs macha allah am na solo kon différent bi nga xam ne amoon na seen diggante yàlla def na ci teg na ci loxo ba lépp macha allah delluwaat na ni mu noonu wax na ko léegi Youssou Ndour frère la euh, magam la xaritam la te moom daf ko bëgg kon yàlla na yàlla continuer jàmm alors noo gisee déclaration patrimoine bu bu sa bu sa xarit muy le président monsieur euh, son excellence monsieur Macky Sall sa doomu ndey patrimoine bi bari na nag maam góor huit villas trente cinq véhicules et des hectares mais dama ni ak fi réew mi toll nii mais ku liggéey mhm. ku liggéey war a am loolu dama lay wax benn affaire c'est que il faut xam li ma la doon wax nii mu ngi ne ñëwaat fii c'est que nit ñi ñoo bëggul ko am dara mais nit kuy liggéey pendant ba nga nekkee xale ba léegi ngay liggéey ba nekk président nekk ministre de l'intérieur nekk ministre jaar ci ministère yëpp nekk président assemblée nekk lu nekk si àddina mais war ngaa mën a am ay kër ay oto mais nag déclaration bi je pense que ni 2012 la woon bu yàgg la kon du lu bees defe naa 2012 la woon xam daal ragal naa ni président il n'est pas mu war a mën a ñëw rek nit sama patrimoine encore lii la xam nga parce que moom defoon na ko ba pare donc ñi ko defagul mooy les ministres yi nga xam ne wax nañ leen dañ ko def avant le 31 août ñoom ñoo ko war a def mais jàpp naa jii nit su amee teraanga nit ñi dañ ci war a kontaan man su ma sañoon damay yeew ñu ne ma Zeyna am na sept kër yu bees ma kontaan mais nit ñi fii bëgguñu dama lay nit ñi xam lañ bëgg xam nga Sénégalais lan la bëgg fekk ñu ngi lay wax ndeysaan eh <laughs> rek xamal ni bëgg mais a gisoo ni nag ak fi réew mi toll nii ak jamono ji ni mu nakari nii ak ak pandémie bi nii ah? président warul sax jël ñetti oto may benn Zeyna may benn keneen ak président may kenn tous <laughs> ba ngay liggéey sa alal nekk woon président bu leen fale uh-huh. bu leen mën nga loolu bari bu leen may tous na geestu population bi yi nga xam ne eh, sonn nañ bu uh-huh. leen obligé kenn ni ko may lii Macky Sall li muy def ci réew mi uh-huh. kenn defu ko fi mu ngi liggéey réew mi barki démb bi mbas mi ñëwee fii 3 milliards de francs la génne jàppale ko le monde de la culture. 3 milliards du 1000 francs. génne ay milliards jàppale ko le monde euh, du tourisme jàppale sport jàppale sénégalais yi. xam mais est-ce que nekkul argent boobu tamit ñun ñoo ko moom. dama ni waaw léegi waaw léegi li ngeen moom jox na leen ko lu tax mu leen jox moom moom moo bañ. <laughs> kon président da ngaa bañ daal doo partage sa oto yi man ah yaa ko bañal ah, man bañal naa ko nee naa ko daal mën nga koo wax rek ko sa xarit la wax nga ko dafa am ay doom am njaboot mm-hmm. am ndono Ablaye Wade ngi nii tey jii moo nekkoon président mais keroog bi rek bi ay sénégalais déggee ñu ne dafa jaay benn këram na nga dégg ñu naan ndeysaan tey bu njëkk ba sénégalais yi dañ wax sàcc la dafa sàcc suñu xaalis xoolal fii ku fi yor dara baye boo nga ni ci niig ko mm-hmm. parce que boo daanoo kenn du la dimbali est-ce que comprendre la mm-hmm. boo yoree sa moon yi liggéey ko donc kii c'est que il faut que ñu bàyyi nit ñi ñu am teraanga. mais dafa am ay sénégalais yoo xam ne dañu bëgg a nekk fii si dëkk bi. yor internet yor seen caméra yor seen téléphone loo am ñu filmer ko naan diw am na lii diw am na lii ñoom day wuti lu ñu am. <laughs> loolu mooy yow maam nga dafa mel dañoo mës a ñëw sa kër gi di la. filmer non ban man mhm. mhm. a mhm. si sama bopp man maam góor. man dama xamul ku may xas ci mi lan ngay wax. dooni sàcc la doo ni góor jigéen la doo ni dafa dëpp kees doo ni dafa ñàkk fayda doo ni day wër di ñaanaatu mm-hmm. loo may waxal man liggéey laay def su ma liggéeyee nag ba am su ma neexee ma tabax sama kër su ma neexee ma jënd sama oto mm-hmm. ku mu naqari nga mat sa bakkan mm-hmm. il faut que nit ñi comprendre ni nit ñi dañu judd pour am ay teraanga tey ji yow boo yoree sa micro bi di wër di dem di wut ñoo interviewé da nga ñaan yàlla ëllëg loo bëgg salaam bëgg salaam ñaan nga yàlla ëllëg am sa yëfi bopp nañu waxante dëgg mhm. keneen ak keneen noonu mhm. borom bitigu mbagg boo gis magasin moo nekk ci biir bopp bi mhm. c'est vrai xam mais fii da ngay gis sénégalais yi ay waxuma ñëpp nag parce que fii dañoo gaaw ni diw wax na Sénégalais yëpp dafa am ñoo xam ne c'est des lâches dañu soxor bëgguñu ko am dara boo solee training bu rafet sax ñu ne lu tax mu sol ko ah. dañu iñaan ñu bàyyi loolu il faut que ñu bàyyi kër jàmbur yi ñuy filmer ak oto jàmbur yeeg uh-huh. ku nekk ñu naan ay diw am na lii demal nga wuti loo yor yow uh-huh. wala loo am loolu mooy dëgg d'accord alors mu ngi noonu am na solo moom ni la mel moom lu mu bëgg a wax lay wax macha allah saa ñu ko déggee suñu micro day wax li nekk ci moom wax li mu xalaat wax li mu gisee affaire yi mais dafa am beneen mbir bu bu bu yees bu yeesaat ci ci ci yëf yi mu nekk nag tey actualité ah, ñëpp di ci waxee muy mu xew biir APR mu xew ci ministre Macky Sall comme d'habitude toujours moom seeni ministre rek la ñuy wax donc affaire euh, gazelle oryx bu Abdou Karim Sall nan nga ko gisee coow li. waaw coow li nag maa ngi koy dégg mais xam nga coow soo ko maîtriser wul. Mhm. soo si wax da nga ciy tey. Mhm. mënuma wax ni moo def wax mënuma wax ni deful en tout cas. Mhm. kuy séddale. boo nekkee ki nga xam ne yow yaa war a séddale yow yaa war a mujjee am. c'est beneen bi ci topp mooy ci quatorze million de sénégalais. xam nga gouvernement un gouvernement dafa mel ni équipe bu football. président bi mooy entreneur bi. président ci quatorze millions de sénégalais bu la ci tànnee gënoo yaay nit ñi. gënoo leen papa. dàqoo leen a jàng gënoo leen a rafet. président moo am yaakaar ci yow tànn la ni la am lii yow laa ko dénk. dëgg la war a fexe ba nag liñ la dënk nga rafetal ko. ba boo bis boo fi jógee di dem ki lay remplacer bu ñëwee am problème sax pour liggéey. Mhm. mais dëgg dëgg neex yàlla waruñu dénk kenn benn. poste de responsabilité. ci poste bi ñu la dénk nga ciy profito. di def naka sa nu dul noonu. donc nag du ma ni ministre bi moo ko def wala defu ko. mais xam nga fii Sénégalais yi Sénégalais da naan Sénégalais euh, day yokk mais du sos. comme niñ ko waxee. bu fekkee nag ni loolu ministre bi moo ko def dëgg dëgg nekk yàlla nekkul loo xam ne lu may rafetlu. voilà pour yow bu defee président Macky da ko war a dàq comme ni mu def Cissé Lo wala. en tout cas da ko war a da ko war a dindi ci ay postes xam nga en tout cas ku def faute. am na sanction boo xam ne war nañ la ko teg man du ma dàqalu kenn parce que jëluma kenn pour di dàqalu kenn mais daal xam naa ni su fekkee ni parce que mën na am tamit mu doon ay accusation mais parce que li nekk ci biir ña ko yor rek ñoo ko am na ay chef parcs nationaux yu fi nekk yooyu quoi mais daal li ma mën a wax daal mooy bu fekkee ni faute la am na sanction boo xam ne war nañ ko ko teg te yaakaar naa ni président am na fulla fayda boo xam ni ku fi def loo warta def moom dina la lijjanti ba nga lijjanti ko leneen nag laa xam ni dinaa ko wax mooy ñi nga xam ni président daf leen jox ay poste de responsabilité mhm. comme ni ma ko waxee nii gënu leen sénégalais yi te président waru leen gën a gore mhm. nit ki su fekkee nii daf la tànn ci quatorze millions de sénégalais def la ministre mhm. wala mu def la DG wala mu def la PCA wala mu def la jàppale sax nga nekk député mais kooku ngala buñ ko dee xas wala ñu koy wax lu ñaaw war nga ko mën a défendre mais man dama gis nii président dafa jël ay poste de responsabilité jox ko ay nit mais ni mu ko jox des fois dafa mel ni sax ñoom ay noonam lañ parce que tubaab moo ni kii ne du rien consent mhm. kon tey jii su fekkee ni président ay nit dañuy nekk di ko song yéen yéen a war a dem ci plateau télé yi dem ci internet bi dem fépp di défendre président même boo leen ko défendrewul moom mais li mu leen dénk poste de responsabilité yi mu leen jox ngeen défendre li mu leen jox mhm. mais dëgg dëgg ne wax dañuy wax lu bari man dama gis ni. dañuy wax lu bari il mouille pas mm-hmm. ko ni ko ni ko gars yi waxee mm-hmm. footballeur yi. dañu wax lu bari que ni Macky Sall bëgg na liggéey mais ñi ñi nga xam ne moom la fal ñu war ko jàppale jàppale wuñ ko. mais président yëpp yi fi jaar yëpp loolu lañ leen doon waxal. Mm-hmm. Abdoulaye bi mu fi nekkee dañoo Abdoulaye at ku baax la mais ñi mu àndal baaxuñu. mais ñi mu àndal ñoom ñoo war a góor góorgóorlu parce que ci ñi mu àndal am na ay jàmbaar am na ay liggéeykat est-ce que comprendre mais bu la joxee post de responsabilité da war a def le tout ba nga xam ni yow même bu fekkee ni ki la ko dénk yow mënoo koo défendre soo défendre li mu la dénk moom nga défendre. mais man ñii dama gisul ñoom lan la ñuy defal président <laughs> loolu laay wax. kon ministre yi doy waar la am. Ah, ñenn ci ñoom non ñenn quoi du ñëpp. Mm-hmm. parce que tey jii le ministre tey jii Matar Ba. Mm-hmm. xam nga tey Matar Ba ñi nekk opposition ak ñi nekk pouvoir yëpp foo ko tuddee ñun la jàmbaar la. liggéeykat la. Mm-hmm. est-ce la donc ñoom nañ fexe roy ci moom. kooku noonu la mu def ba nit ñi di ko tudd secteur bi mu nekk nga xam ni presque moom mu ngi yor boo xoolee euh, ministère de la culture euh, kii ministère euh, des sports uh-huh. yor na ay presque plus de quarante et quelques fédérations uh-huh. xaw ma cinquante sept fédérations xaw ma quarante et quelques uh-huh. mais bu fekkee ni nit ki yor na ko ñoom ñëpp mu jaar yoon gisoo ci non aalu du mën a ñàkk mais très rarement ngay gis ku ci aal dire que ni le gars il mouille le maillot. ñoo mhm. nañu roy ci moom. jàng ci moom am na solo euh, mu ngi noonu kon dañuy terminer rek ak sama dernière question muy affaire Ndingler bi yow noo ko gisee noo ko jàngatee ak sortie bi nga xam ni Aly Ngouille Ndiaye def na ko ci. waaw mais li Aly Ngouille Ndiaye sortie bi mu ci def dama koy rafetlu. Mhm. parce que bu fekkee ni yow yaay ministre de l' mhm. yow la ñu dëkk bi. sécurité dëkk bi yaa ko yor. su fekkee ne dafa am ci sa njaboot ñoo xam ne dañuy jàppante te ay bakkan mën fa rot lu nekk mën fa xew mm-hmm. li am solo mooy nga sol sa dàll nga dem nga teg ñaari camp yëpp nga waxtaan ak ñoom mm-hmm. ñii mbay li ñuy dunde dañuy bay dunde tey jii waa ji la fay def projet yi mën na xaar da moom réglé ba nga xam ni gars yi war nañ fa mën a bay ba nawet bi jeex après ñu réglé affaire bi mm-hmm. mais loolu kay c'est à féliciter donc Aly Ngouille Ndiaye tey jii loo mën a wax jàmbaar la mu ngi ñafe na loolu dañ ko war a féliciter. Mm-hmm. comprendre la mm-hmm. jàmbaar dëgg la parce que man franchement bi ma liiree communiqué bi dama ni nag franchement ñii ils sont à la hauteur mm-hmm. jàmbaar la ñu parce que ay nit Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi léegi nag am na loo xam ne tamit sénégalais dañ ko war a maytu nañu bàyyi di écraser suñuy homme d'affaires nit bu fekkee dafa jóge ci suuf di ñafe ba yegsi ci kaw xam nga fii xam nga la lañuy bañ diw am na alal boo amee alal rek ñu commencé la saaga di la écraser comprendre la mhm. nit bu fekkee ni yàlla da ko dimbali mu nekk ci réew di liggéeyloo ay sénégalais di leen jàppale mais waaye Sonko jooju doon ko attaqué naan Babacar Ngom ko est-ce a fait pour le Sénégal lan la fi def Babacar Ngom il a au moins mille sénégalais yu muy liggéeyloo di leen fay salaire mhm. mais wax ma kenn ku bokk ci Ousmane Sonko wala Ousmane Sonko lan lañ kan la ñuy fay Sénégal mhm. salaam bu sene web sax moo leen tane ndax yow mu lay fay di fay ñeneen ak ñeneen ñoom ku ñu fay ba pare képp ku baax ci réew mi ñu bëgg la xeex man Babacar Ngom xamuma ko uh-huh. mosuma koo gis lijjantiwu ma pour gis ko uh-huh. sama yoon nekkul ci moom uh-huh. mais c'est un Sénégalais c'est un homme d'affaires c'est quelqu'un qui investit dans ce pays dañ ko war a soutenir dañ ko war a jàppale waruñu abuser nag enrichir nit gratuitement d'accord uma ko mais gisoon na ci affaire Ndingler bi Babacar Ngom war naa comme yàlla dimbali na ko defal na ko teraanga euh, mën na dem uti leneen bàyyi paysans yi mais à sa place moom rek moo ko mën a def man du ma wax kenn mayel sa alal parce que alalam fa mu toll ci moom ak na mu ko liggéey dafa am njaboot dafa am ñu ko war a donn man du ma mayeloo kenn sa alal koo mën a dimbali nag te yàlla tax def ko mun nañu wax nit képp koo mën a dimbali te yàlla tax dimbali mais bàyyi sa alal wàllu du ma ko bàyyiloo kenn mhm. parce que nit ki fa mu jaar ba am alalam moo ko xam c'est vrai yéene ja mu am foofu tey ji amaana la mu fa bëggoon def bu ko fa defee mhm. waa Ndingler am na seen doom yi ñu ci mën a liggéey mhm. tey mën nañ ko xaaj jox ni waa Linguère li des mu def ci li mu si def ñeneen liggéey ci tey ji état bi mën na ko jël di ko loué muy fay état bi xaalis bi di dem ci état bi mhm. yooyu yëpp ay solution la jii moom ci biir conférence bi ma seetaanoon temps yi la passé mhm. mu si wax ni mhm. xam ne tey jii mën na koy continuer di loué wala ñoo xam wala ñu jëgg fii jox ñii lii ñu fexe daal ba nga xam ni kenn du fi xarante ay bopp parce que na ñoo xam ne tey ji ci réew mi lañ nekk chaque jour lu taal réew mi la wax chaque jour ñu ngi inciter xale yi à la violence génn leen bu doon match de football ngeen gën a xeex te bu dee seen réew doo leen gën a xeex gis nañ fi ay leader politique yu koy wax pour taal dëkk bi sénégalais yi ñoo war a bañ loolu mm-hmm. gis nga dëkk bu tàkk ay du yem ci bopp moroomam Serigne Abdou Aziz Sy mm-hmm. Malick yàlla na yàq yàlla yokk leeram mus naa seetaan benn affaire bu mu doon nettali mu ne dafa am benn waaye boo xam ne dafa gisoon ñaari si ndax yuy xeex si kaw néegu ñaxam mm-hmm. mu ne xeex bii sama yoon nekku ci si ya di xeex ba ni tëbb ca ànd ba uh-huh. ànd ba këru daal di laal néegu ba néegu ñax ba taal léegi si ndax ya doon xeex xam ay si ndax lañu mais ay du yem ci bopp borom tey uh, néegam lakk na uh-huh. ay lalam lakk te ay si ndax a indi uh-huh. donc tey jii Sénégal kuy ñaan na ñaan yàlla jàmm ci réew mi c'est important c'est important jàmm ci réew mi parce que jàmm ci ngay ci ngay mën a sañse ba rafet ñëw toog nii di ma interviewé ci la ñun ñëpp mën a dox suñuy soxla te kenn ak kenn du am benn problème donc loolu c'est important ñun ñoo bokk day ñoo bokk bàyyi Sénégal benn bopp la. Mhm. kenn mënu ko xar ñaar. mu ngi noonu message bu am solo Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar donc lu ñuy ñaan rek mooy coow li nga xam ne moo am biir Ndingler entre Babacar Ngom ak paysans yi nekk foofu ak ña fa dëkk yàlla def ci sutura ba lépp delluwaat ci li nga xam ne mooy seen activité mooy seen yitte ñu amoon nag waxtaan bu am solo ak Mame Ngor Diazaga tey moom la ñu euh, dalal fii ngir waxtaanee point yu am solo kontaan nañ bu baax ñu bàyyi la nga tàggoo ak internet yi. waaw maa ngi leen di remercier di remercier képp koo xam ni mhm. yaa ngi xool euh, interview bi. Mhm. et tamit bu fekkee ni wax nañ fi wax boo xam ni wax bu déplacé la wala boo xam ni nit ñi dañuy gis ni déplacé na. Mhm. jubluwuñ ci woon loolu. ñun liñ ci jublu mooy xam nga leeral lanterne sénégalais yi xam ni mhm. Sénégal xam nga ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. ñun duñu noonu kenn. dañu xalaat li xalaat ni dëgg la. ñu koy wax. loolu rek la mais du ñu noonu kenn yéenewuñu kenn safaan mhm. ñëpp jàmm la ñuy yéene et puis di remercier waa Seneweb mhm. di remercier encore une fois sama frère Salam mhm. di ko ñaanal tamit li nga xam ne moom lay xaar ci site bi yàlla defal ko allahumma amiin merci moom la ñu dalaloon tey euh, ma koy remercier très personnellement ndax lu ma bëgg ci moom suba ba ngoon su ma ko woowee danaan maan bu la neexee nga ñëw léegi donc loolu dama koy remercier di remercier madame bëgg yooyu dañoo bëgg lu baax alors di remercier tey sama cadre yi nga xam ne moom laa àndaloon muy Sanu Faye euh, ma koy remercier di remercier El Hadj El Hadj Fall euh, di remercier équipe technique bi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi ci montage ba lépp yemb ba ñu mën a yaan ji jàkkaarloo ak yéen saa su ne Seneweb number one